waaw ñun suñu liggéey nag boo gisee li ko sabab mooy fexe ba taxaw ñi nga xamante ne euh, état daf leen jàppee les groupes vulnérables mënuma ne ñi nga xam ni seen loxo jotul gannaaw wala dañ ndool ndax loolu dafa di une partie de la vulnérabilité lu jëm ci wàllum koppar waaye jàpp nañ ni am réew boo ci nekkee rek boo yeewoo am na loo xamante ne état warloo na kook yow war ngaa mën a dëkk ci kër goo xamante ne euh, kër gu sell te wér la say doom war nañoo mën a jàng yow sa bopp boo feebaree wala sa njaboot feebar war nañoo mën a feju kaaraange war ngeen ko mën a am te ni yàlla tolloolewulee nit ñi noonu la euh, tamit ay soxlawu nit ñi bañ a tolloowee ci ni ñu leen di toppatoowee ci ci ci ci ci sunu réew euh, boo xoolee nit ñi ak fu ñu mënti dëkk rek dina am loo xamante ne euh, dinañ ko am wala duñ ko am te loolu nag dafa ajoog li nga xamante ne moom la ñu am ci ay revenu euh, ajoog fi ñu dëkk euh, ni ñu fa dëkkee seen xam-xam fi mu toll euh, maanaam fi ñu dëkk ndax dafa di une zone urbaine wala c'est une zone rurale kon ñun ñu am taxawaay goo xamante ne dañuy boole état mi nga xamante ne moo yor gafa ga réew bi xaalis ak koppar bi nga xamante ne moom la ñuy saafaraawee soxla ak jafe-jafe wu sénégalais yi ak ñi nga xamante ne ñooy askan wi ndax état bu fekkee ni am na euh, li ko waral mooy am na askan woo xam ni dañuy natt mooy lempo bu ñu nattee ba noppi koppar yooyu nag la ñuy jël jébbalaat ko askan wi ci ay services publics wala ay opportunités ñu jàpp ni nag ñun suñu organisation dafa di organisation goo xam ni euh, spécialité woo mooy li ñu naan li budget public ñuy liggéey ci li ñu naan budget participatif inclusion citoyenne fexe rek ba kàddu ak batu ñep tolloo ci fa nga xamantene ne fa la ñuy naseeg fa ñuy muy le conseil municipal au niveau local donne l'assemblée nationale au niveau national di fexé nak ba état di toog ak askan wi ndax askan wi euh, ñu rek di xaar maanaam yaafusñu ay kuréel lañu am ay organisation lañu am mo xam ay mbootaayu jigen la ay organisation paysanne la ay organisation de jeunes la ñu fexe rek ba ñooñu xam-xam bi nga xamante ne am nañ ko ci seeni jafe-jafe ci seeni soxla état mën ko dégg bu ko déggee buy nas wala muy développer ay politique mu mën a fexe ba loolu doon loo xamante ne bàyyee nañ ko xel ndax bu fekkee ni yow mi nga xamante ne yow lañ dénk nga yor alalu réew mi bu fekkee yow mi nga xamante ne yaay décider askan wi jox nañ la lenge ne la ah yow ñii ak ñii ak ñii yow yaa na war a toppatoo yàlla na yor moo xam ay waylaago lañ moo xam ñi dëkk naa les quartiers défavorisés lañ moo xam ñi dëkk naa les zones rurales lañ baax na nga xam ñooñu lu ñuy dund te nga laaj leen ñoom ci seen xalaat ana yan jumtukaay nga war a mën teg ba seen dundin gën a neex ba mu gën a yees suñu liggéey nag loolu la renforcer la dynamique citoyenne encadrer organisation yi taxawu leen xamal leen mais loolu yëpp ci liñ naan citoyenneté positive ci beneen fànna gi nag ñuy fexe rek di jàppale état mu xool fan la l'impôt am ana nan la ko mën a amee xool fan la guerre am ana nan la ko mën a xeexee xool tamit fa nga xam fa nga xam ne liggéeyam baax na mu gën ko biral fa nga xamante ne tamit liggéeyam sooxe na fa mu gën ko jekkal fu mu gàgg ñu gàggante ko jàppale nag état au niveau des collectivités locales comme au niveau national nous avons des échanges des consultations le dialogue nécessaire avec les populations ba nga des Sénégal day am yokkute waaye itam dañ tolloole ñëpp ci li le service public santé eau assainissement inondation avons également ci li les opportunités économiques nous avons mu ngi bàyyeekoo ci nit juddoo ci réew mën fee fejoo fi liggéey fi tekkee fi euh, am fi njaboot loolu mooy épanouissement loolu nag dafa di loo xamante ne koppar yi nga xamante ne mooy kopparu état muy budget da cee am solo lool ndax état bokk na ci jumtukaay yi gën a am solo yi mu am ay budget am te ci loolu lay jaarale li nga xamante ne mooy liñ naan le les politiques publiques ñuy fexe nag ba mu méngoo bëgg-bëggu citoyen yi